jullit bi amaana wax xëy na lenn loo xam ne kat kële nga xam ne du jullit mm-hmm. moom jàpp na ne ak tooñ la mm-hmm. wala tamit ki nga xam ne nekkul jullit maanaam wax ak wax boo xam ne maanaam jullit bi jàpp ni lay loolu tooñ la fu nga ne li nga fas gën pas-pas yi nag noonu la man su ma gëmee lislaam dama jàpp ne lislaam a gën lu dul lislaam keneen ka gëm leneen lu dul lislaam moom it dafa jàpp ne lam gëm moo gën lislaam kon boo xoolee kooku weddi na ñun liñ gëm waaye ñun it weddi nañ lam gëm alquran nag nañu bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai walmursalin nabiyina muhammadin sayidi al awalina wal axirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimu alhakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokku téléspectateur u Fafa TV yëpp ak fépp fu ngeen ñuy mën a jotee moo xam ci biir réew mi la waaye rawatina ci bitim réew mi ñu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waaleykum salaam ginnaaw bi ñu sante suñu borom si ay xéewalam yu ñu mënul lim di julli si yonentam bi sallallahu alayhi wa xam ngeen ni saa su nekk dañuy am mbégte ak kontante di teewaat ak yéen ci suñuy jotaay waaye rawatina suñu jotaayu jàngat bii nga xam ne saa su nekk ñu ngi leen koy indil comme ni ngeen ko xamee rek jotaayu jàngat moom li ko tax a jóg mooy jàng ak jàngale waaye fàttali suñu bopp di fàttali suñu mbooleem téléspectateur yépp ay tomb ci suñu diine si loolu jotaayu jàngat saa su nekk dafay tànn ay thèmes yoo xam ni non seulement dafay nekk ay thèmes yoo xam ni yu nekk actualité la waaye tamit yoo xam ne yu jar di fàttali la si loolu ñu tànn thème boo xam ne mooy li ñuy wax relation sociale maanaam jëflante si biir islam moo xam diggante jullit ak jullit wala diggante jullit sax ak ñu dul jullit maanaam ci gàttal li ñu mën a tuddee vivre ensemble bi ñu tànnee thème boobu ñu ñëw gaaral ko suñu sëriñ nga xam ne moom kenn dootu ko présenté si Fafa TV kooku mooy kan al imam Alioune Badara Ndao al imam Alioune Badara ndaw comme niñ leen ko waxee léegi moom dootuñu ko présenté fii ci biir Fafa TV ndax mën nañ wax ne moom mooy suñu consultant maanaam direct ci suñuy mbir yépp macha allah kon alhamdulilah dañuy jox al imam mu nuyoo ñu soog a dugg ci suñu liggéey al imam ñu ngi lay dalal ci biir jataayu Fafa TV di la bàyyi nga nuyoo ak mbokk yi ñu toog a tàmbali suñu liggéey bismillah bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin <clears throat> allahuma salli wa sallim wa ala nabiyina muhammadin wa ala alih asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salaam ñu ngi leen di delloo di nuyu mbokki Fafa TV yëpp ci biir réew mi ak biti réew mi ñaan suñu borom subhanahu wa taala liggéey bi yàlla na ko suñu borom nangu njubluwaay bi nga xam ne it moom lañ ci am te mooy yaatal dendub diina yal na ko suñ borom subhanahu wa taala sottal ñu ngi nuyu nag mbokki internet yi yëpp di leen ñaanal jàmm ak fu ñu mën a ne di ko ñaanal réew mi di ko ñaanal àdduna si bismillah alhamdulilah jazakumullahu xeyran al imam ci nuyoo yooyu mbokk yëpp ñu ngi lay delloo ay nuyoo alhamdulilah imam kon dañuy daal di dugg suñu liggéey rek ci li njëkk ci liñ lay laaj rek mooy al dañuy wax dañuy dégg ñu naan vivre ensemble wala relation sociale wala muamalat si gàttal al imam boo ñu doon xamal loolu mooy relation sociale maanaam jëflante euh, nan nga ñu koy xamalee alhamdulilahi rabbil alamin euh, jëflante ci lislaam sëñ Bàmba euh, suñ borom subhanahu wa taala mooy ki koy tëralal boppam moom mooy ki bind jaam yi moo leen xam xam ne mu bind may na leen sañ-sañu kenn ku nekk tànn kam bëgg doon dund la mu bëgg a dund. Hmm, bu boobaa nag kon maye sañ bi ci bu yaatu xam na ne hmm, ñëpp duñu àndandoo tànn menn ku nekk day jëfandikoo sañ-sañam ci dund la bëgg a boobaa da ngay gis ne wuute dana am. ci la nanuy tànnee ak la nuy tànn suñu borom subhanahu wa ci xam-xamam bu làmbee ci la tëralalee jaamam ñi aw yoon woo xam ne buñ ca jaaree danañ xajoowante ci seen biir mën a jëflante ci seen biir jëflante bu rafet mën a dundit ci seen biir dundit woo xam ne wu set lay doon kenn ku nekk xajoo morom ma nangul morom ma la ko suñ borom subhanahu wa Eh, cërale mu dib cëram ci dund bi loolu nag ki ñun jullit ñi dafa bokk ci sunu pas-pas muy lan eh, nangoo xajoo keneen dund ak moom eh, nangul ko libertéem celam lam tànn ak la muy dund moo tax suñu borom subhanahu wa tëralal ñu tër yu rafet yooyu nga xam ne daañ mën a dund ci kaw suuf dundin wu set te dana feeñ ci biir waxtaan wi insha allah dundin wu sell kenn du agressé morom ma kenn du tooj morom ma kenn nit e, du am ay yéene yu ñaaw ay wala ay pexe yu bon ca morom ma rawatina nag ñi nga xam ne ñoo nangu jël diinaam jooju nga xam ne ñun ci lañu basé wu ci suñu suñ waxtaan ndax am jullit buy waxtaan dafa am base boo xam ne ci lay teg tànkam loolu ci lañ sukkandiku ne buñ ci jaaree rek dundin wu rafet dana am lorante yi dana néew insha allah macha allah dundin wu rafet daal ci lislaam mooy kenn ku nekk nangul moromam mm, la ko suñ borom may alhamdulilah ah, ci gàttal macha allah alhamdulilah al imam mu mel ni wax dëgg yàlla leer na ci loolu nga xam ne maanaam moom mooy dundin wu rafet waaye al imam yaa ngi koy wax léegi maanaam mu mel ni kon suñu bërëm suñu borom subhanahu wa taala moo ñu ko tëralal kon mën nañ xam imam loolu noonu nga xam ne mooy dundin wu rafet lan mooy àtteem ci lislaam ak maanaam lan mooy importance am jërëjëf sëñ Bamba euh, dundin wu rafet woowu àtteem ci lislaam mooy wareef la hmm. ndax suñ borom moo ko moo ko digle am na foo xam ne boo demee ci suuratu suura suñ yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñ borom da ko wax loo ne ko wa umirtu li aadila baynakum des ma digal ma doon ku maandu sama diggante ak yéen fekk ma nga doon wax ak ñeneen ña nga xam ne dañu doon dund leneen lu bokkut ak moom lam gisoon di ko dund maanaam la ko boromam joxoon waaye nangu leen nangu it ne allahu rabbuna wa rabbukum walana amaluna walakum amalukum suñu borom kenn la moom la ñuy jaamu ñun yàlla jooju ñuy jaamu kenn képp la mooy sunu borom di seen borom euh, li ñu jëf ci la ñuy àtte ëllëg yéen it li ngeen jëf ci lañ leen di àtte ëllëg moo tax euh, dundin wu rafet nekk di woreef ci jullit bu ne rafetal rafetal googu nag day feeñ ci sunuy kàddu kàddu yu ñuy wax suñ diggante ñu nu neen moo xam ñun ñi bokk diina ji la di lislaam sunu yonentu di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama wala ñañ bokkalul diina ji te ñoom ñoo jëfandikoo seen sañ-sañ ci tànn ne gëmuñu yonentu boobu yi gëmuñu diina jooju mu leen indil Mm, lislaam daf ñu yar ne na ngeen góorgóorlu ba nañ mucc ci seen làmmiñ nañ mucc ci seen loxo loolu jullit bi daf ko war a dund ak kudul ab jullit xam na fu gàtt fu muy wax ne al man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi jullit mooy koo xam ne eh, jullit ñi dañuy mucc ci làmbiñam waaye dañuy mucc itam ci ab loxoom noonu nag nga xam ne ni la jullit war a muccee ci mbokkum jullitam na la ñu lislaam yaree ci ñeneen ñi dul ay jullit it ñu nag ñu mucc ci sunuy làmbiñ mucc ci sunuy loxo loolu moom sëñ ba wareef la masha Allah na bu ñu demee ba àgg ci xutba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mujj def ci dundam ñu koy tuddee xutbatu xajjatil wadaa nga xam ne foofu mooy fi mujj a taseeg jullit ñi ci ci ci Makka mm-hmm. ci génn aj gi nga xam ne moom la aji mm-hmm. ñu koy tuddee xutba ak tàggatoo ga maanaam moom la mujj def ci Makka laa ci jublu mm-hmm. xutba googa buñ ca demee daañu gis eh, ab jullit ni mu nekkee wareef ci moom mu rafetal digganteem ak mbokkum jullitam waaye rafetal digganteem ak ku dul sax ab jullit. macha alhamdulilah macha allah kon man nag mooy mhm. obligation obligation mhm, ci wolof macha allah al imam mu mel ni yaa ngi koy wax maanaam mhm. loolu nga xam ne mooy dundin wu rafet kon wareef la wareef la ci biir lislaam kon du ñàkk tamit euh, ki nga xam ne mooy suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moom la suñu borom yónni si ñun nga xam ne lépp luy diine ci moom lañ koy jëlee du ñàkk kon jàngale na ko kon al imam suñ la bëggoon laaj maanaam lan mooy jàngale bi si maanaam nekkin bu rafet rawatina si diggante jullit ak jullit waaye itam sax mën nañu wax rawatina si jullit ak ki nga xam ne nii du jullit. mën nañu wax ne lislaam yëpp loolu lay jàngale. alquran yëpp loolu lay jàngale. ndax euh, lislaam li muy njëkk def ci nit ki mooy tabax pas-pasam pas-pas boobu mu ngi mel ni ci sunu taax yi ak garab yi reen ba ak fondement ba xam nga tabax bi bu fondement bi amut miir bi du mën a taxaw waxuma laag nag ñu cee tegub terrasse moo tax kon pas-pas bi ak boppam dafay bokk ci jikko jikko yi nga xam ne moom ci lañuy sukkandiku di ci jëflante ak suñu borom ak sunu bopp ak sunuy morom sunu morom yooyu nag ñi ci di jullit ak ñi ci dul jullit njàngale mi ci jiitu kon nee naa la mooy tabax pas-pasub nit ki ba nit ki yëg gëm wóolu dëggal ne amatul lenn loo xam ne lu muy defati la fii ci kaw suuf lu dul ne da caa war di déglu ndigal ndigalul borom bi tabaraka wa loolu mooy pas-pasub laa ilaha illa allah ndax bu ñuy wax tawxidul rububiyati ak tawxidul uluhiya rububiya mooy nangu ne lépp yàllaa ko moom uluhiya nag mooy nga nangu ne waroo fee def lenn ci lu dul ndigalam jullit bi nag feeg lépp la muy def ma ngi cay sàkku ndigalul borom bi tabaraka wa li ci tënku ci ndigalul borom bi tabaraka wa taala ah, jëfam yooyu ak waxam yooyu ak comportement am yooya dafay nekk yu rafet jikko yu baax rek lay jikko jikkolante ak ñi nga xam ne ñoom lay bokkal dund bi ñu ne nag noonu mu tabaxee pas-pas bi noonu lay tabaxee itam eh, xel xelum nit ki nam koy tabaxee mooy def ca njàngum alquran njàngum sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi maanaam njàngum diina njàngum diina moomu moom la ñu jàngaloon sunu yonentu sallallahu alayhi wa sallam mu bàyyil ñu ko fi ñu soxna Aysa di sunu yaay ummul muminin radiallahu anha naka la jikkoo yonentu bi alayhi salatu wasalaam bindoo woon nu meloon ndax ba ñuy tontu def na rek kaana xuluqul quran boo bëggee xam jikkoom demal nga liir alquranul karim boo sëggee ci alquran liir ko baqara ba naasi gis nga jikkoom moo tax ñu nekkoon kon loolu soxna si wax ne kaana xuluqul quran euh, daf ñuy tekkil ne alquran lépp jàngale jikko bu rafet boobu la te jikko bu rafet boobu moom la dundee ci suñu biir jikko bu rafet boobu nag ci la nit ki di jëlee ni muy jëflanteeg njabootam ci biir këram loolu la ñuy tuddee alxayaatu azzawjiya maanaam dundin bi war a dox diggante nit keeg euh, njabootam ci biir këram moo xam soxna sa la moo xam doom ja la waaye noonu itam ci lay jukkee ni muy dundee diggante mag ci dëkkandooram waaw góor ak jigéen mag ñaak ndaw ña ñëpp kenn ku nekk dafa am ay àq yu ñëw tëdd di ko jàngal ne ko na nga dundee sa dëkkandoor bi nii ci wàllu boote seeg moom nuyu ko ba mu jeex euh, rafetal na ngay dëkkeek moom su ñàkkee nga jàppale ko su nekkee ci xat-xat nga wallu ko ca ba mu jeex noonu itam ni lay tëralee relation yi diggante ah, dëkk yeeg réew yi ba lënkale nag askan doom aadama yépp ci genn buum muy wenn askan loolu kon mooy njàngale bi boo ci doon tànn ay texte ci wàllu Euh, nekkin mu rafet woowu njàngale yi ci wàcc mën nga cee njëkk a jël laaya boobu ci suratu nisaa ca bopp ba foofu boo xoolee suñ bàmba suñ borom dafa woon nit ñi ne leen ay nit ñi xam nga foofu mënoon naa wax ne ay yéen ñi ma gëm waaye daf ne déedéet ay nit ñi ittaqu rabbakum allazi xalaqakum min nafsin waxida boo xoolee foofu rububiya la jiital rububiya nag mooy mborome borom bi tabaraka wa taala mborome googu day sàkku ne kon moo bind lépp mooy borom lépp ki bind lépp nag day yemale ñépp ca na ñuy nekkee ci lépp maanaam ca na ñuy nekkee ci liñ bokk ñoom ñëpp moo tax suñ borom woo ñu foofu ci baatu mborome ñu ne foofu ab junj la buy wane ne hmm, moo war a jox ndigal ki ko gëm waaye itam moo am sañ-sañu jox ndigal ki ko gëmut ndax mooy borom ki ki gëm mooy borom ki gëmut rububiyatu rabbakum allazi xalaqakum min nafsin waxida suñ borom bi nga xam ne moo leen bind yéen ñëpp ci benn bakkan ñu nekkoon loolu am njàngale la muy wane ne mboolem ñi suñ borom bind ñuy askanu bani aadam suñ borom boole na leen wenn askan loolu am njàngale la muy wane ne kon am na lu ñu boole bokk nag googu ñu bokk euh, wenn askan wi euh, ci biir njàngale mi dañ ci gisaat bokk benn borom donte yéefar bi la ak jullit bi ñoo bokk benn borom ndax kenn ki leen sàkk kon loo ci gis ñaari yëfagum bokk benn boroom ñaareel bi bokk wenn askan min nafsin waaxida loolu yëpp ay junju la euh, ci njàngale mi alquran da caa bokkaat ci yeneeni barab barab boo xam ne suñ borom subhanahu wataala taala ma ngi fay wax nag ne yéen ñii bokk benn borom euh, bokk wenn askan ngeen di dund wuti dana am mu jàngal ñu nag nu ñuy dundee su boobaa ñu tànn ci rek ñetti laaya laaya bi ñu ciy njëkk a tànn mooy ba nekk ci suuratul baqara bay wax ne bu kenn forcé morom ma ca pas-pasam moo tax bu doo gis mukk ab jullit suñ borom jox ko nguur muy forcé moromum jullitam ci pas-pas laa ikraha fi diin lu ñu tere ab yar la njàngale mu am solo moo xam ne bu ñu ko dundoon kenn dootu forcer kenn ci fas-fas donte nag xam nga ne yow jàpp nga ne li nga fas moo gën fas-fas yi nag noonu la man su ma gëmee lislaam damaa jàpp ne lislaam a gën lu dul lislaam keneen ka gëm leneen lu dul lislaam moom it dafa jàpp ne lam gëm moo gën lislaam mhm. kon boo xoolee kooku weddi na ñun liñ gëm waaye ñun it weddi nañ lam gëm ndax ku gëmut sa borom gëmut sa yonentu nga ne ko kaay ci sama lislaam ji mu ne gëwuma ko kooku weddi na lislaam kon weddi na sa yonentu sallallahu alayhi wa borom ba nag yéen ko bokk kooku nag mën naa doon ah, kuy askanoo ci diina lu mel ni al yahudiya gëmoon benn diina ci diina njëkk yëpp mu yahudiyatu euh, comme nit yent yàlla Moussa yi alayhimu salaam mën naa doon it ku gëmoon benn yonentu ci yonent yi fa jiitu woon comme ak nasaraaniyatu ñoom dañoo gëmoon yonent yàlla Isa alayhi salaam ñu ne ñu nag yéen ñooñu nga xam ne bokk leen nu ngeen gëmee kii dafa gëm ab yonentu yàlla Muusaam kee gëm yeneen yonentu yàlla Isa yéen jullit ñi ngeen gëm yeneen yonentu yàlla yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nag yemu leen ca da ngeen a wëlbatiku nag gëm yonentu yi ca des yëpp moo tax boo demee ci alquran muy wax ne laa nu farriqu duñ mën a guddal waaye ci dañuy indi l'essentiel lu tomb ak li wax rek laa nu farriqu bayna ahadin min rusuli nun duñu teqale kenn kenn moo tax boo ñëwee ci këri jullit ñi da nga fiy fekk tur yonentu yëpp da ngay gis ñuy tuddee Moussa alayhi salaam di tuddee Isa alayhi salaam di tuddee Daawuda yonentu yàlla Daawuda mooy Dawit di tuddee Suleymaan alayhi salaam mooy Salomo ci gàttal dañuy tuddee ñëpp ndax ñun yonentu yëpp la ñu gëm alquran nag nañu bu ngeen gëmee yonentu yi yëpp salawatullahi wa salaamu ajmain tekkiwul ne da ngeen am sañ-sañu seen gëm googu ngeen forcé ko ñu ca des muy benn waaye tekkiwul itam nag na ñu ca des dañoo war a jël seen pas-pas ñoom it forcé leen ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy ñëw fii ci kaw suuf diine yi ma la tuddal yëpp fii la leen fekk seeni pas-pas fii la ko fekk waaye teewul suñu borom subhanahu wa ne ko saxal ci li nga gëm bul jéem a kenn ñaareelu laay ba mu ci saar wu ñu tuddee suratu yunus suñ borom dafay wax ne walaw shaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jamian gis nga lam ci teg afa anta tukrihu nnaas xata yakunu muminin alayhi salaatu wassalaam suñ borom daf ne ko sa borom bu ko neexoon ñëpp gëm tey gis nga suñ borom bu ko neexoon tey tey tey mu wàccee benn kéemaan ñëpp gëm ne nocc waaye nag ngëm goo xam ne dañ la cay forcé loolu du ngëm ngëm dafa war a dëppoo ak conviction maanaam dañuy tuddee iqtinaa naa mooy loo xam ne da ko koo xool xam-xam càmbar koo xam-xam ba xam-xam wan la ca mbir mu doy la nga ne kon nag man gëm naa lii yonentu alayhi salaatu wasalaam noonu la gëmee sallallahu alayhi wa sallam ñoom abou bakar ni siddiq sahabatul kiram ridwanullahi alayhim ñoom ñëpp noonu lañ gëmee ñun ñii nag di seeni njaboot yi ñu nit noonu lañ gëmee kon dañoo gëm par conviction suñ borom ne ko ndax dangaa bëgg a nit ñi ba pour ñu pour ñu nekk ay ay jullit afa anta tukrihun naasa hatta yakunu mu'minin loolu ab yar la ci ñun ñëpp bu leen jéem a kenn loolu bi ko ko suñ borom di jàngal nee naa la ñi weddi yàllaa ngi fi waaye newut ko forcer leen ñay gëm dund yahudi yaa ngi fi neewut ko forcer leen wax ne yàlla ñett la ñu ngi fi waaye newut ko forcer leen ni la ñu bàyyi wax jooju ndax mënu ko ñooñu loolu mooy seen conviction moo tax alquran buñ ko dundee njàngaleem alquran buñ ko dundee eh, na ko yonentu bi alayhi salaatu wasalaam dundee woon daan daan dund ak ñëpp maanaam danañ dund ak ñëpp te du ñu heurter kenn du ñu jéem a kenn moo tax saa yoo gis gisee ab jullit ne ma ngay forcer keneen ku dul ab jullit ci pas-pas nag ne ko eh loolu ngay def bokkul ci diina mhm. ndax loolu suñ boroom santut la ko bu dee ci ñunu neen nag nga xam ne mooy ñun jullit ñi foofu dañ fi amaat ab yar yar booba <clears throat> mooy déggin déggin mën nañ caa wuute am njàngale mu am solo la nag ci suñ biir mën nañu jàng benn aaya ma am ci déggin wii nga am ci déggin wii waaye dañ naan nag kenn ku nekk na am ragal yàlla gu toll ni déggin wam ca am da ko gëstu ba jàpp ne aaya ba noonee mu ko déggee la te fekk na ragal yàlla képp moo doonoon cës laayam ba muy gëstu te itam foofa ñu wuutee na doon barab boo xam ne nangu na wuutee bu mu doon foo xam ne nangu wut wuute ndax dafa am foo xam ne moom wuute mënuwu fa lu mel ni ki yàlla kenn la ci suñ biir ñun jullit ñi nanguwul wuute moom dong lañu war a jaamu ci def ay ndigleem bàyyi ay tereem nanguwul wuute foofu moom jullit ak morom ma mënuñ faa wuute jullit ak ka jullit nag ah mën nañ faa wuute ñu bàyyi xel loolu baa sëñ Bàmba waaw lu mel ni kii itam julli dafa war ni mu waree woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la ñu waree ñun ñëpp foofu nanguwul wuute ci diggante jullit ak jullit am naa jullit ak ku jullit nag mm-hmm. ba mu weddee ne wedd sa diina boobu la am sañ-sañ ñàkk julli ba mu jeex kon daal domaine yi nga xam ne moom la ñuy tuddee ay domaines yi ijtihaad ñun jullit ñi mën nañ caa wuute waaye suñu wuute na ko gëstu xam-xam lal na ko wut dëgg lal bu boobaa kenn ku nekk nag day am jort lu rafet ne ah mankat kat aaya bi nii ma ko déggee gëstu ba jàpp ne nii la sama mbokk mii itam noonu la def dafa gëstu ba jàpp ne nii la la ma may sañ-sañu nag jëfandikoo xam-xam ak gëstu moo ko may sama mbokk mii ragal yàlla gi ma foog ne mu ci man moom laa foog ne mu ngi ci sama mbokk mii seetlu nga ko de bu baax moo tax su boobaa dañ naan ah waxal lii rek ra'yi sawaabun yaxtamilul xata wa rayuka xataun yaxtamilu sawaab ni ma gisee day jàpp naa ne mooy njub waaye mën naa am nag ma nekk ci njubte li tax ma wuuteeg yow ci masala bi mooy yow jàpp ne yow yaa juum yow it nga jàpp ne man maa juum waaye mën naa am sax fekk na man li ma jàppee ne yow yaa juum yow yaa nekk ci dëgg kon xam nga ne jamtalu naa ne yow yaa nekk ci dëgg jamtalu naa ko waaye nag notal naa sama gis-gis man itam jamtalu nga ne yaa nekk ci dëgg moo tax nga notal sa gis-gis donte nag man jàpp nga ne damaa juum bu boobaa jàpp gi nga jàpp ne yaa nekk ci dëgg waaye mën naa am maa nekk ci man maa nekk ci njuumte mën naa am yaa nekk dëgg gi kat mën na far ak yow moo tax man du ma la xas doo ma xas foofu it ñu bàyyi fi xel ne. comme nee naa man jàpp naa ne maa nekk ci dëgg yow da juum ba pare nag wëlbatikuwaat ne ah malgré jàpp naa ne da ngaa juum de waaye mën naa am yaa nekk ci dëgg de nga jàppee noonu. waaye waaye wuti boobu du ñu du ñu du ñu jotali Bàmba. macha allah boobaa kenn du du du jéem a forcer morom ma. ci ne ko tey nga déggee nii ma déggee. tey nga déggee nii ma déggee nag ci masala moo xam ne ñun ñëpp dañoo yor suñuy xel. yor suñuy xam-xam. am sañ-sañu gëstu ca. bu jullit ak morom ma wuutee rek. ñàkk jël yar bii mënu ko yóbbee bu ko defee kon loolu nu bàyyi ko xel bu baax ci sunu biir dafa bokk ci njàngaleem lislaam su fekkente ne bëgg nañoo dund ensemble eh, nawloo wante kenn ku nekk jox morom respect nii lañu war a dundee euh, loolu muy sunu biir ñu nu neen am na ñetteelu aaya bu mu waxoon ne danaa ko indi dama ko dafa mel ni indiwuma ko de. Ah, macha allah mooy wala yazaluuna mhm. muxtalifiina illaa ma rahima rabbuka nit ñi duñ dañ di wuute nda ka nga xam ne suñ borom yërëm na ko foofu nag borom xam-xam yi gis ko ko wuute waat ñu ne mooy ki suñ borom yërëm ñu ne ah kon ñooñu jullit lañ lañ ci jublu ñi suñ borom yërëm moom mooy ñi jël yërmandeef jii di diina ñoom duñ wuute ci masala yu mag yi waaye nag mën nañoo wuute ci masail ijtihaadiya yi ñetti laay yi mbaam Bàmba boo ko boolee dana nekk am njàngale moo xam ne dana ñu may ñu nu neen ñu dund ci anam gu rafet du ñu xëccoo du ñu euh, ŋaayoo lay indi muskila ba nag euh, ci sunu biir mooy man ma jàpp ne nu ma gisee ci mbir rek noonu képp la te doonte mbir ma mbirum góor la ci wàllu xam-xam ijtihaad la ku wuteeg man rek ci neen nga nekk su ma jàppee noonu ne ku wuteeg man ci masala ijtihadiya ci neen ngay dund ma jàpp ko ci yow nga wuteeg man kon jàpp naa ne yow sa dund yëpp neen la yow it nag boo jàppee noonu jàpp nga ne man suma dund yëpp neen la ndax ñaara yet nag bëriyaat na koo jàpp ne dundam neen la bëriyaat na sa jàppin bu juum woowu nga mën caa sukkandiku ba di ko dal bu ko defee dun wi dundin day daal di indi eh, ñàkk a eh, xajoowante ci sunu biir ak ñàkk a nangul kenn ku nekk la ko suñ borom may ci jëfandikoo xam-xamam ci fànn googu kon loolu lañ doon wax ci fànn googu ci gàttal njàngile yi nag yaatu na lool ndax eh, bu dee man par exemple fii ci Sénégal nga xam ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci population bi ay jullit lañu wala boog quatre-vingt-quinze pour cent ay jullit lañu euh, quatre pour cent yi ay ay chrétien lañu mu ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent yoo xam ne ñoom ñëpp kenn ku ne def ne am na diina bu ma gëm ñooñu boo demee ci saar wu ñuy tuddee euh, suuratul mumtaxana da danga fa fekk laaya di wax ne laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddin walam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruhum gis nga baatu tabarruhum la fa jëfandikoo suñ borom terewut leen ñi nga xam ne leen ak ñoom diina te ñoom it ñu ngi dund yéen ci jàmm xeexuñ leen neewuñ leen du ngeen ko fi dundee lépp luy xeetu njekk suñ borom aayewut leen ko seen diggante ak ñoom an tabarruhum baatu dafa ëmb lépp luy mbaax ak njekk ak teraanga kon gis nga foofu alquran day wane ne loolu moom lañ war a def suñ diggante ñoom waaye wa tuqsitu ilayhim ngeen maandu ci ñoom lii mooy njàngaleem lislaam teg ca nag ne inna allaha yuhibbul muqsitin suñ borom dafa bëgg nit ñu maandu ca nañuy dundeeg seen bopp ca nañuy dundeek seeni i nawle seeni i morom ñu bàyyi la kon nga dem ci yeneen i euh, nu mu laaj alhamdulilah Mm-hmm. alhamdulilah al imam macha allah mu mel ni wax dëgg yàlla indil nga ñu njàngaleem lislaam ci lu yaatu ci li nga xam ne moom mooy vivre ensemble maanaam dund ci dundinu rafet moo xam diggante jullit la waaye itam moo xam sax diggante jullit maanaam ak ñi nga xam ne du jullit waaye rawatina sax ni nga ko détaillé surtout si biir li nga xam ne ni moom mooy jullite waaye al imam ginnaaw bi nga ñu indilee li nga xam ne moom mooy dundinu lislaam Euh, maanaam njàngaleem lislaam ci dundinu rafet. Hmm. ñun tamit bëggoon nañ xam fii nga xam ne moom mooy suñu société fii nga xam ne moom mooy fii la ñuy dund ci biir lislaam hmm. maanaam ci ci ci biir Sénégal. Hmm. ndax yow jàpp nga ne lii nga xam ne moom mooy dund bi ñu war a am ci suñu biir ndax jàpp nga ne lu rafet la. maanaam si diggante jullit ak jullit yi ba si diggante jullit ak ñi dul jullit ndax jàpp nga ne lu rafet la wala ndax jàpp nga ne tamit mën nañ ko gën a ñoŋ rafet na ndax Sénégal askan la woo xam ne ñun ba nu xàmmee ko ba fii nu toog mosu ñoo dégg euh, ñaar ñu bokkul diina ña ngay xeex ngir lan dañoo bokkul diina loolu moom suñ borom musal musal nañu ci bu ko defee kon moo tax ñu ne euh, dëkkin wi rafet na lu ñu ko may lu ñu may dundin wu rafet woowu jàpp naa ne li ñu ko may mooy njàngale mii ñu wax léegi ci gannaaw nga xam ne majorité bi quatre-vingt-quinze pour cent dañu basé wu ci seen diina jëfandikoo ndigal yi nga xam ne moom la leen seen diina digal ñu koy jëfandikoo seen digganteeg ñii nga xam ne ñoom lañ bokkal réew mi te bokkuñoo ak ñoom diina yarub diine boobu sunu mag ñi doon ko sàmm mm, ñu nit ñu wéy di ko sàmm jàpp naa ne mooy bokk na ci li gën a rafetal euh, dund bi fii ci senegal waaye it ñaareel bi ñee nga xam ne bokkuñook ñoom diina ñu di chrétien ñoom it référé ci seeni euh, texte yi nga xam ne moom lañu moom la leen seen diine bàyyil te amul benn diina bu santaane salfaañe àqi morom ma bu boobaa ñaar ñooñu bu ñuy dund fawu seen dund dafay rafet jàpp naa ne kon baatub diina bi bi nga xam ne moom la quatre-vingt-quinze pour cent yi gëm tuddee ko l'islam yeneen 4 pour cent yi gëm ko tuddee ko christianisme baatub diina boobu bokk na ci li gën a participer ci rafetal nekkin wi fii ci Sénégal moo tax mën nañ ne rafet na buñ nee nag rafet na nekkin wi rafet na dañ naan lu rafet lu nekk am na lu ko gën a rafet ñu commencé ko ci sunu biir ñun jullit ñi ni nuy dundee rafet na gaa ndax ñu ngi xajoo wante xeex amagul yàlla bu mu am déggaguñ benn kuréel bu jóg e, dal ca morom ma donte nag mu ngi am léegoo léeg ay xëccoo fii bàyyil fii réeroo fii réeroo fële loolu moom mu ngi am waaye niveau bi mu yemagum dañuy ñaan ne yal na fa yem yal na deltu gannaaw moo tax ma nekkoon am na lu gënoon a rafet am na lu gënoon a rafet te a gënoon a rafet bu amoon xëccoo yi am léegoo léeg diggante mbooloo yi du am ndax liberté wóor euh, ñi nga xam ne ñooy référence ci diina jii di lislaam euh, nekkoon fii ay ay kilifa doon yar ak ñi nga xam ne ñoo leen fi wuutu tey ñoom ñépp bu fekkonte ne dañoo jël seen mbir tabax ko ci njàngale mii ñu wax léegi ci gannaaw muy njàngaleem lislaam di njàngaleem rasulullahi sallallahu alayhi wa ma yar ci sama njaboot nga yar ci sa njaboot ma Masamba yar ci njabootam ma Demba yar ci njabootam yar bi benn lay doon bu boobaa luñ fi bari bari bari bëri bëri xëccu doom loolu nag ca la taaru lislaam di gën a feeñee eh, ci la vivre ensemble bii ñuy wax di gën a eh, taaroo ko defee nag kon dafay eh, jot suñ gisee ne dundin wi gaa ñaawut rafet na waaye mënoon naa gën a rafet ndax su gënoon a rafet yenn yii di am du am suubaak kon dafa nekk wareef léegi ci kilifa yi yépp ñu jëlaat seeni matuwaay jéem a jël ñawu borom bi tabaraka wa taala xam-xamu borom bi tabaraka wa taala te boobu ak ñaw googu moom la mag ñi yépp doon dundkat lii moom na leer amu fi menn mag mu fi dundoon leneen lu bokk ak ñaw borom banaam xam-xamu borom boobu mu ñu indil ñoom ñëpp yal na yàlla eh, gërëm leen ñoom ñëpp yàlla na yàlla fayal ñu leen yiw eh, mën nañ ci indi rek misaal ku mel ni dañ ciy tànn ku mel ni eh, Cheikh Ibrahima Niass mi nga xam ne ci dëkk bi ñu nekk fii tey fi la nekk. gis naa ko ci benn way muy wax ne. kitaabun min allahi aljalili jalaaluhu qadimun wa baaqin laa yaxaafu zawala dem na ba ci biir lenn ci ay wéyam wax ne in atasamna bil ilahi wa bi diinihi l islaami wal imaani wal ixsaani xam nga loolu mooy lislaam gis nga lam ca teg wa nuhibbu ahla allahi safwata xalqihi maa darranaa hadayaanu zi hadayaani ba doon tënk ñetti way ñetti way fee dafay wax ne téere borom bi tabaaraka wa taala bu ñu fi indil euh, téere la boo xam ne yàggaayam teewut ko fee des daf fiy sax mu tekki nag ne téere la bu bàyyi koo ci ku màgg màggam googa nag màgg ci jëmmam la màgg ci xam-xamam la màgg ci matam la mu ne téere bi ñun amuñ sikki sàkkee daf fiy des moo tax ñu moy ci nga inna atasam naa bil ilaahi ñu ngoy moo tax ñu ne ngoy ci suñ borom wa di wa bi diinihi l islaami wal imaani wal ihsaani xam nga lii yéen yéen ko jàngale mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam liimaan mii mu ñu fi indil ak lislaam ak lihsaan moom ca lañ moy bu dee suñ digganteeg nit ñi nag mu ne wa nuhibbu ahlallahi gaa yi yàlla yëpp lañ bëgg ñan ñooy ahlullah ahlul quran safwata xalqihi gis nga dafa jël ahlullah yi sax tagg leen wutal leen tur wu rafet ne ñooy seggiti mbindeef fii bu boobaa su ma jàngalee ci sama daara alquran nga jàngale ci sa daara sëñ bay jàngale ci daaraam ñun ñëpp ñu jàngal suñu njaboot alquranul karim yarleen yar bu mel nii <coughs> jàpp naa ne soppante rek mooy am mën nga ci jëlaat beneen wëy boo xam ne euh, keneen ci magi réew mi wax na ko muy Cheikh Ahmad Bamba rahimahullahu tabaraka wa gis naa ko muy wax ne ci benn wëy quraanu rabbiya laa abgi bihi badalan bihi ilaa ila rabbil waral ulama mu ne sama téere borom bii du ma ko wutal leneen lu ma koy wattee kon kii lu ma di mooy itam alquran mu ne nag jëm wootewu ma jëmee ci kenn ku dul téere bii te ñi may woo sax mooy ñi xam téere bii kon gis nga ne fii sëñ bi dafee eh, saxal ne ab taalibeem dafa war a jàng ba nekk aalim bu fekkoon ne taalibe yi wax dëgg yàlla turu taalibe wuyoo nañ ko dëgg dëgg dëgg dëgg ay ulama la doon aalim nag moo mën a topp aalim mhm. ku xam moo mën a topp et ka topp ndax da koy topp ci xam-xam moo tax mu ne bihi aqudu ila rabbil waral ulama dafa tuddee ñi ko topp ne ay ulama u lañ war a doon mu ne téere bii laa leen di gindee yóbbu leen ci sama borom gis nga bee daf ne bii zaala gammi hiina amsaktuhu hudan ba ma ko téye jàpp ko mu dem jub ca laa teqale ko naqaru àdduna sa ahdi bihi nafsi jii nag moom ma tax di wax sa ahdi bihi nafsi téere bi ci laay jubbantee sama bopp wa ahdi bihi saxba ci laay jubbantee samay bi ci gàttal daal euh, doy doy loo nañ ñaari mag ñooñu waaye jàpp naa ne boo demoon ci meneen mag it nafsu say i moom nga fay gisaat mu wax ko am na benn wéy boo xam ne gis nañu askane ko ku mel ni ki mm, Maodo Malick Sy rahimahullahu tabaraka wa taala muy wax ne fa turqu kulluha ila rahmani muusilatun muslikatun yaa jaani nee na tariqa yi yëpp amuñ weneen yoon udul la ñu ngi jëm ci arrahman kon fii lu mu fi doon euh, fatt buntub teqalikoo pour wane ne nga topp sëriñ bee ma topp sëriñ bii warta waral ñu ñu wuute ndax ñun fi ñu jëm fenn la ci gàttal daal damay wax ne euh, alhamdulilahi rabbil bu ñu toppoon njàngalem alquran mi nga xam ne moom la fi mag ñii doon dund ñun jullit ñi moom suñ dund dana gën a rafet moo tax jàpp naa ne ñoom ñii seen dundin rafetoon na moom mosuma dégg fu ñu wax ne sëñ Bamba ma ngi fay xëccoo ak euh, Maodo Malick Sy wala fu fii Maodo Malick Sy ma ngi fay euh, bijjanti maanaam ma ngi fay xëccoo ak ab taalubeem taalubeem sëñ Bamba déedéet bu ko defee kon nañu gën a euh, liggéeyaat ci fànn ji ba saytaane du am digg suñ digg suñ diggante fu ñu mën a jaar ba yàqal ñu yal nañu dimbale ci loolu. amiin yaa rabbal aalamiin bu dee suñ diggante ñeneen ñi ci des nag. muy suñu mbokk yi bokkal réew mi. te mënuñ koo xëccoog maanaam mënuñ koo séddoog ñoom. muy chrétien yi. jàpp naa ne suñu diggante ñoom rafet na. alhamdulilah waaw man loolu laa jàpp. alhamdulilah ndax euh, ni nu dëkkee. mosoo dem ci benn dëkk gis fa conflit. diggante ñu ñuy wax ne ñii ay jullit lañu. ñii ay chrétien lañu man man gisaguma ko boog mën a day ndaw. alhamdulilah. malgré nag ci fan yu mujj yi gis nañ fi ay yëngu-yëngu xam naa loolu dama la koy bàyyee jombul danga ci àgg ak laajte incha allah alhamdulilah mm-hmm. al imam mu mm-hmm. mel ni leer na wax dëgg yàlla indil nga ñu ay leeral yu am solo ci li nga xam ne moom mm-hmm. mooy nekkin wu rafet ak dundin wu rafet noo seulement si diggante jullit ak moromam waaye rawatina itam si jullit si diggante jullit ak ki nga xam ne ku dul jullit mu mel ni kon al dafa mel ni léeg kon dundin wu rafet woowu nga xam ne moom lañ nekkee ñun ñii di ay jullit malgré que xëy na am nañ ay wuute mm. euh, ak euh, dig dundin wu rafet woowu nga xam ne jullit yi am nañ ko ak ñi nga xam ne duñu ay jullit dafa mel ni arrangé wul ñenn ñi ba tax na xëy na léeg-léeg dañ si profito maanaam pour jéem a créer loo xam ne ni amaana du problème ñoom ñu def ko problème mel ni loolu lu am solo kon al imaam li ñu lay laaj rek. Mhm. mooy yooyu léeg naka lañ ko mën a jàngatee. waaw yooyu de ñun bu ñu delluwaatee ci njàngaleem lislaam mhm. incha allahu daañ ci mucc. ndax boo xoolee sahabatul kiram mhm. ridwanullahi alayhim ajmain l'islam bi muy ñëw daf leen a fekkoon ñu doon dund leneen. loolu la ñu doon dund nag indiloon na leen ay fitna. ca nañ doon dundee. Euh, foofu nga xam ne mooy sunu capital di almadinatul munawwara ab xare nga fa woon woo boo xam ne wolof da koy tuddee xareb cepp li xareb cepp li mooy xare boo xam ne ab génération dañ cay dund ba màggat ca jël xare ba joxaat ko yeneeni génération ñu nekk ca di reyante rek reyante gu métti googu moom la fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekkoon diggante ñi ñu doon tuddee al aws ak ci dafa am nag ñeneen ñuy nekk loon ñoo xam ne ñoo daan xam bu taal ba ñooña euh, bokkuñu woon ak ñoom diina ñoom lañ doon tuddee al yahudiyatu te ñoom liggéeykatu ngànnaay lañ woon ñu ñu xereñoon lañ ci liggéey arme te xam nañ ne bu bu bu xare bi amul ngànnaay yi du jar ay commerçant lañ woon yoo xam ne daanaka seen commerce yëpp ci loolu la ñëwoon malheureusement nag xare yooyu métti woon na lool moo tax waa Madina amoon sansu biñ gisee yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak wooteem bi ñu déglu ko ak bëtu xel xam nañ ne kañ daan dégg kii la kii daal moom mooy ki nga xam ne buñ ko fatee yaakaar nañ ne musiba wonuy dund dana jeex bañ ko dundee it alhamdulillahi rabbil alamina gis nga alquran mu ngi koy jonj ca suuratu Ali Imran di wax ne wadkuru nicmatallahi alaykum id kuntum aadaan fa allafa bayna qulubikum fàttaliku leen seen démb ba ngeen noonoo alquran ñëw ci ndimbalul suñ borom dajale leen ngeen nekk benn benn benn benn jëmm fa asbaxtum bi nicmatihi gis nga nicmatu la ko tuddee bi xéewal googu ñëwee rek ngeen mujj nekk ay mbokk ixwaanan doon dund nag daanaka ci ay bunt maanaam pind kambe sawara ëkkantuma sa safawara tamit naar euh, yahud yooyu bi ñu demee ba gis ne marché boobu mu ngi bëgg a jeex fatt ndax ñi juboo nañ kon kuy jëndati seen gànnaay yi di ci rayante ñoomu neen xare yi di yóbbu seeni seeni alal ñu ñuy gën di jëfandikoo li ñuy tuddee riba ci seen kaw ndax riba ñaare fu fu ak ñàkk am ndóol am fa rek buntu riba day daal di gën a ubbeeku ndax nit ñi dañuy gën a bëgg bor ña daan leb la itam dañuy gën di bëgg a joxe bor ya di ca teg lañ cay teg di ko dundee yowut yi bi ñu ba xam ne ñaari bunt yi mu ngi bëgg a fatt muy buntub riba beeg buntub euh, armement yi dañoo romb bis ci pencum pencum euh, masjidul madina ne ñu ñu gis jullit yi aw soo xas raj ñu ngi toog di waxtaan juboo mel ni mosuñoo am noonu ci seen biir am na benn yahud boo xam ne moom lañ doon tuddee Saas ibnu Qays yahud bu doyoon waar la mu ne ñii ku leen bàyyi ci seen juboo gii musiba dana am daal di woo benn xalam ne ko demal ma nga toogal ma ci mbooloo mbale boo demee boo àggee rek nang leen laaj ne waaw seen diggante yéen waa aw soo xas raj xaraya ñan ñoo notoon gis nga ba ngay indi affaire ceddo voilà xaar bu bu waasa bi xale bi ñëwee wax loolu rek wëlbati waxtaan wa ci saa si rek aw su commencé gis si seen bopp naan ñu xare sàngam ñoo notoon ñeene ñu itam xare sàngam ñoo notoon coow li bëgg a yëkkatiku bañ jógaat kenn ku nekk jëm ci jaasin gis nga saas ibnu qays ab yahud la woon mooy li ngay junj nii am na est-ce que amul ñoo xam ne jubóog jullit ñi arrangé wul leen. ah kay loolu du fi jóg. booba nag Saas ibnu Qays dafa nekkoon benn jëmm bu daan dox nii rek waaye léegi Saas ibnu Qays ay institution la. mu mel ni imaam ci loolu laa doon jëm sax maanaam ah. loolu nga xam ni démb mhm. kii nga xam ne mooy saas ibnu qays mi nga xam ne tudd nga ko mhm. nga xam ne moom nekkoon na amaana ki nga xam ne moom kat euh, jubóog jullit ñi arrangé wut ko mu mel ni al imam est-ce que kon loolu nga xam ni moom moo xewoon démb si jamono yonent est-ce que amul ñoo xam ne ba léegi tey jii nii ñun si jamono jii nga xam ne moom la ñuy dund mhm. rawatina suñuy réew mi mhm. maanaam jàmm ji am mhm. ñun ñii suñu biir suñu diggante jàmm ji am ndax amul maanaam ñu mel ni Saas ibnu Qays yooyu su suñu jamono jii nii waaw jërëjëf Cheikh am Cheikh Bamba man damay wax ne Saas ibnu Qays moo ma nekkoon kenn tey ay institution internationale lañ yoo xam ne dañuy toog ca kaw di xool jullit ñi ak seeni dundin ñuy ràbb ay pexe yuñ koy xajamalee saa yuñ gisee koo xam ne ab defarkat la rassembleur la ñu jabolise ko saa yuñ gisee ne am na ñaari kuréel yoo xam ne kat ñu ngay bëgg a jege yoo ñu ñëw gasaat kàmb ko seen diggante sotti sawara ñooñu nag ñu ci biir mbooloo yi lu jar a bàyyi xel la représenté fi ay institution maçonnique waaye nag neex nañoo ñoo xàmmee li tax ma ne neex nañoo ñoo xàmmee mooy wooteeb alquran moom benn woote rek la wooteeb bennale wooteeb jubale foofu ma te profité occasion ne xam gu yonent bi xamoon sallallahu alayhi wa sallam ne yàqkat yii ñu ngi fi moo tax keroog ba mu génnee daal di leen dajalewaat ca la commencé nag di leen moytandiku loolu lépp luy xeetu féewaloo ci seen biir. ba gis nga sax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni mu nekkee woon njiit yor état am force te biir ñim jiiti woon amoon na ci ay yahut bu jàmmook ñoom boot leen ay yahut laa wax de <laughs> mu boot leen non seulement boot leen waaye dafa si signé ak ñoom pacte. du fi xaj. Mhm. waaye eh, yàgg nañoo wax pacte boobu ñu tege ñu di tuddee. Mhm. Eh, misaqul madina. Mhm. ñenn ñi ko tuddee as saxiifa mooy xët wa nga xam ne ci lañ bindoon nu nuy dundee vivre ensemble. mën naa wax ne constitution yi àdduna bi. booba mooy première constitution boo xam ne teg nañ ko. muy wan yahud bi nooy dundeek jullit bi. di wan eh, kudul yahud bi nooy dundeek. jullit beeg yëwut bi di wan ki gëmul dara waaye moom ay ay ay euh, xàmbam la gëm moom itam mu koy wan nooy dundee ak ñii nga xam ne nee nañ seen diine ma nga bàyyi ko ci borom asamaan ak suuf loolu yonent ko tëraloon sallallahu alayhi wa sallam te boo demee ci alquran dañuy wax ne la tajidanna ashadda annaasi adaawatan lillazina amanu lyahuuda ñu gën a tar nooneel ci yéen jullit ñi mooy ñu ngeen bokkal pacte bi waaye malgré loolu yëpp bokk nañ pacte bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam reconnaître seen diina ne lil yahudi diinuhum walil muslimina diinuhum nañ bàyyee yahud yi seen diina lañu yoroon ñoom jullit ñi it nañ leen bàyyeeg seen diina waaye nag saa yu ñu demee ba jàppante am kooku fa innama raddahu ila llahi wa ila rasuli sallallahu alayhi wa sallam nañ ko delloo ci yàlla ak ab yonentam sallallahu alayhi wa mu àtte ndax yàlla mooy borom ñëpp te maandu rek lay atte kon loolu moo nekkoon vivre ensemble ma noonu ma ko waxee nag ne mu nga doon dund ak yahud ak euh, wasani yu ma nga doon dund ak euh, chrétien ma nga doon dund ak ñoo xam ne gëmuñ gëmuñ dara waaye itam nag ma nga doon dund ak ci biir jullit ñi ñoo xam ne ay munaafiquun lañ ay munaafiquun saar wàcc ci ñoom naan iza jaaka almunafiquna qaalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yaalamu innaka la rasulu wallahu yashhadu inna almunafiqin la kadibun naafeq yooyu ñun mu mën naa am ñu wax ne sahaaba yi mënuñu leen woon a xam waaye moom xamoon na leen suñ borom xamal na ko ne ko diw la ak diw ak diw ak diw jox ko list bi ba mat sëkk mu nga ko Xusayfatu ko defee kon ala kulli haal noona yonent bi alayhi salaatu wasalaam xajoo woon ñëpp boot ñëpp doon dund ak ñëpp lam ca jublu woon mooy ñii ngay junj institution yii nga xam ne ay saas ibnu qays lañ ay teqalekat lañ pour féewale nit ñi ñuy reyantee ka jamantee ka tuurante deret la ko suñ borom jàngaloon yankiiwal ko hikma ne ko bootal ñëpp bul may seytaane mu nekk fee ca biti naan muhammad alayhi salaatu wasalaam ma ngay xeex ak aw ñoñam waaye nag dama cee wax lu am solo mooy suñ wuutee bu dee yahut ak yahut la na leen seen diina àtte bu dee jullit ak jullit la na leen seen diina àtte gis nga maandu gii de fi la maandu mën a yem bu fekkee nag ab yahut ak ab euh, jullit ñoo jotee nan ko delloo ci yàlla mu àtte ndax ñoom ñoo représenté woon quatre-vingt-quinze pour cent ci population ba gënoon faa bëri loolu moom lañ moom la ñuy doxal tey ci àdduna bi mooy règle démocratique yi nga xam ne dañuy wax ne majorité bi dañ leen di respecté moo tax gis nga boo loolu la dafa war a dellu si fa inna maraddahu ilallah tey nag dañ naan dañoo bëgg vivre ensemble waaye majorité bi liñ bu buñ ñoo ñoomu neen minorité bi moo leen di atte lu yàqu ci àdduna bi li ma ko yàq minorité boobu itam dañoo wëlbatiku teqalewaat majorité bi xañ leen kàddu xañ leen lépp moo boo demee ci ku mel ni euh, Cheikh Ibrahim Niass gis naa ko mu wuy am solo ne tamassak bi azyalin nabiyyi mutaabian madahibahu wal muhdasaati falaala neel moyal ci euh, mbiccum yonentu bi alayhi salaatu wasalaam toppal jaaruwaayam lépp luñ sos gannaaw wëccal falaala yaa ngi ndax xam na ne lii rek ñu mën a boole li mu ci teg fottux nii ka an dusturi kursin wa xaalidin wattux nii ka an joonin yaru mu mu xaalaa nee na su boobaa dustuur yi maanaam dustuur mooy constitution yi nga xam ne moom la fi ñoom John Locke indi alxuraan doy na la wëccal fay dustuur yooyu lu mu ko tëjee fama napoli yoonu aw liniinu wa markosul bi muuxaa ilayhim xalli anka xabaala nee na ñii ñu la fi indil nag mu nekk ay petite minorité yuy référé wu ci Napoléon ak Lénine ak Marcos maanaam socialiste yeeg eh, démocrate yeeg communiste yi yaakaar naa yooyu ñooy ñu jiite mu ne ñooñu nekkuñu bi muuxaa ilayhim amul benn wax yu bu wàccee ci ñoom xalli anka xabaala wucca loolu yàq la gis nga yàqkat yi feek waaw feeg euh, téyewuñ ci seen loxo jullit ñi duñ dëñ di am ay problème bu ko defee kon dafay jot nag léegi jullit ñi yeewu euh, delluwaat ci njàngalem yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xam ne wuute yu mel nii bu amee dañuy daal di gaaw jëfandikoo njàngalem rasulullah sallallahu alayhi wa sallama mën ko régler loolu nag ñu ngi koy man su fekkente ne atte yi dañ koo teg ci loxol majorité niñ nangoo ne fu ñu dul ay jullit nekk majorité mën nañ leen a àtte ci lu dul la jullit ña gëm waaye waaye nañ nangu ne itam jullit ñi fuñ nekk nekk fa majorité war nañoo mën a àtte nit ñi nga xam ne ñooy dund ak ñoom ci àtte majorité ba ci gàttal ala kulli xaal loolu mooy liñ doon wax ci euh, mbirum Saas ibnu Qays ci ne institution la yoo xam ne tey mën nañoo yàq lu bëree bëree bëree bëree bëri ci féewale jullit ñi ci teqale jullit ñi ci rëdd ay rëdd ci seen diggante pour loo xam ne du jege yow mukk alhamdulilah al imam mu mel ni wax dëgg yàlla euh, lii nga ñu indil ci lii nga xam ni moom mooy ñi nga xam ne ñoom maanaam vivre ensemble bi arrangé wut leen mm-hmm. mu mel ni leer na waaye al imam loolu tamit terewul ba léegi ñi nga xam ne ñoom li lii lii di vivre ensemble si diggante jullit ñi arrangé wut leen Mm-hmm. ñoom ba léegi ñu ngi fi. te ñoom duñu ñu mës a bàyyi mukk. léegi al imam bu ñu la doon laaj maanaam yan taxawaay maanaam la jullit yi war a am wala sax ñun est-ce que ñun jotul tey. Mm-hmm. ñu muus xam ni ñii nga xam ni euh, seen intérêt ñoom moom la ñuy seet rek. ñoom ñoo nekk ci gannaaw maanaam di jéem a ruux ñi nga xam ne mooy diggante si biir julliti ak sax diggante jullit ak ak ñu dul jullit maanaam ban comportement lañ war a am dëgg dëgg dëgg fas ci ñooñu waaw euh, comportement wu l'islam rek maanaam delluwaat ci njàngalem l'islam man gëm naa ne ñooñu nga xam ne ñooy def la Saas ibnu Qays defoon te mooy ñëw di féewale bu fekkoon dañoo jël njàngalem l'islam teg ko ci suñ biir bu ku mel noonu ñëwee bëgg a dox sama diggante ak meneen mbooloo ma commencé di wax ci ñoom du ñaaw euh, damay jëfandikoo njàngalem l'islam moo xam ne neen mbooloo la bëgg a wax ak man wala benn doomu aadama ci doomu aadama yi ma bokkal diine ji ci la bëgg a wax ci ci ñoom hmm. arab dafay wax ne li damay njëkk wax waxi arab door a ñëw ci eh, alquran arab dafay wax ne man naqala ilayka faqad naqala anka loolu moom benn principe bu gàtt la boo xam danaan moytul ki ñëw toog ci yow toogee fi moromam wala mu toogee fi meneen mbooloo ndax moom missionnaire la dafa am lu ko tax a jóg. mooy yàq sa diggante ak kookee muy wax ci moom lu ñaaw. wala yàq sa diggante mbooloo mii nga bokk ak mbooloo mee nga xam ne ma ngay wax ca ñoom lu ñaaw. te yàq sa diggante ak ñooñu du sa doole arrangé wul ñu loolu su fekkente ne man jàpp naa ko gëm ko fas ko danaa xam ne kii élément passif la boo xam ne. Euh, te jéego bii muy dox bu sottee du du sama ngëneel bu defee damay daal di xam a yem ci moom mooy laay bi muy bëgg a wax si law laa sami'tumuhu ja zanna al muminuuna wal muminaatu bi anfusihim bi biñ bëggee taskir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo commencé di jël ay waxi neen di ko jàllawlante ba daanaka xaw nañoo toj société jullit ñi ndax dem nañ bi ci biir jàkka ja ay kàddu nar faa ba ay jaasi nar faa jóg ngir la wax wax yàqkat yooyu naaf yàq yooyu. bu defee nag kon dañuy sàkku ci ñi nga xam ne ñooy jullit ñi tey. rawatina njiiti jullit ñi. ñu bàyyi xel ñuy ñëw ci ñoom di wax ci ñi ca des. ñu bàyyi xel ñii ñëw ci ñoom di wax ca ñi ca des. Euh, amoon nañu wayjur woo xam ne da daan jëfandikoo laaya bii. boo mosaan ne ñëw ci moom ne ko ah diw dey nangam ak nangam ak nangam danaa da lay tontu ci saa si moom danaa la ah man dey diw la ma xamoon ci moom ak li nga wax ci moom du benn toogal toogal mu toog moom da koy jaral mu jóg génn ba ci ëtt bi ne demal nga wool ma diw hmm. diw moo mu ci dëkk bi bu ñu diw mu ñëwut mu ne ko nuyoo pare mu ne ko toogal mu toog. mu ne ko ngóor si jaaraatal ci li nga jaaroon. macha li nga waxoon ci diw mi nga toog. Mhm. jaaraat ci. Mhm. gis nga góor googu. Mhm. dem na ba mujj gi kenn ñemeetu la toog ab kilifa gu mag la woon nag. macha kenn ñemewu la toog ci kanamam di wax ci kenn lu ñaaw ndax xam ne noonu dañ koy régler léegi ci pénc mi. noonu nag su fekkonte ne wax dëgg rek loolu mooy mooy mooy mooy mbir mbirum lislaam mhm. zannal muminuuna wal muminaatu bi anfusihim xayran wa qaalu haza mhm. ifkun mubin ay ay nar ngay wax law laa jaawu alayhi bi arbaati shuhada mhm. lu teewoon ngeen digal leen ne dem leen woon wuti seede ci li ngeen wax bu boobaa su ma ñëwee ci kilifa gi wax danaan ma ah am nga ci seede ma ko waa am naa ci seede mu ne ma waa baax na danaa woo mbooloo moomee ngeen bokk toog bu mbooloo ma ñëwee ñu jaarloo waat ma fañ ma fam ca la ma waxoon ca kanam ña ma ko waxoon ci ñam ñu di mbooloo dëgg dana feeñ moo tax bu dee kenn nit ku ñëw di wax ci yow mi muy wax ngay kilifa te kookee la muy wax ca ña muy wax ca ñoom nekkul lu jub jëfandikoo yar bii rek léegi tey bu soobee yàlla euh, yàqkat yooyu dootu yam fuñ jaar mm-hmm. mm-hmm. law laa law laa jaawu alayhi mm-hmm. bi arbaati shuhadaa ñoo ko wax ñu ne wax ñu ne nañ dem wuti seede indi mu jeex takk loolu nag maa ngi koy dénk kilifa diine yi yëpp ndax fi mu ne nii eh, jamono wax la eh, jamono campagne la te ñiy wax am na ci ñoo xam ne lañuy wax ñaare duñ koy seet yàlla bokk ñoo ñi nga xam ne dañuy wax te la ñuy wax mm-hmm. yàlla dong lan cay seet moo leen tax di wax defar rek leen tax a jóg ak luy defar société bi mm-hmm. ñaar ñëpp nag dañ lay ñëwal yow société yow yow kalifa gi bu boobaa ñaar ñu di la ñëwal mm-hmm. jëfandikool confrontation bi rek andil ñii ñii ñëw ñii ñëw ñu teg leen ci kanam mbooloo mi ñu wax ca la ñuy wax comme dafa as jëm ci askan bi jëm ci diine lislaam jëm ci beneen diina ñu wax ñëpp dégg bu boobaa incha allah mbir ma rek la ko day yomb lool. yal na yàlla may sunu kilifa yi. Eh, taxawaay yu mel noonu. bu boobaa ñiy dox ci diggante yi di yàq. Mm-hmm. léegi tey seen bu yàq fare bor. incha allah alhamdulilah al imam mu mel ne sax daanaka egsi nañ si suñu cappaandaw jàngat. Mm-hmm. waaye al xam naa li mujj rek lañ lay laaj al imam eh, léeg fii ci suñu société bii nga xam ne dañuy dund léeg mu am xëy na ay jafe-jafe ci wàllum discours. moo xam euh, xëy na jullit bi amaana wax xëy na lenn loo xam ne kat kële nga xam ne du jullit mm-hmm. moom jàpp na ne ak tooñ la mm-hmm. wala tamit ki nga xam ne nekkul jullit maanaam wax ak wax boo xam ne maanaam jullit bi jàpp ne lee loolu tooñ la mm-hmm. ba si sax tamit li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi nga xam ni tamit euh, nit ñi lu si nekk fu nekk rek nit ñi daal ñu ngi wax ci gàttal ci gàttal daal al imam mu mel ni amaana xëy na am nañ fitna bu rëy Mm-hmm. waaye al imaam ñun liñ la bëggoon ñaan rek mooy xëy na ay conseil ak ay orientation ak ay ndénkaane ci yooyu mbir yooyu nga xam ne amaana mu ngi xew rien que rek pour mën a maanaam ñoŋal li nga xam ni moom mooy cohésion sociale bi nga xam ni moom lañ nekkee. waaw waaw jërëjëf euh, surtout ci wàllu discours yi. Mm-hmm. ndax euh, <coughs> borom xam-xam yi danañuy faral di wax ne mm-hmm. li yàqu. la gën a bari làmmiñ moo moo fay jaar waaye it nag luy defaru la gën a bari làmmiñ moo fay jaar te junj boobu nga junj ci discours yeeg diggante mbooloo yi dafa am solo mm. mën naa wax benn wax mu jëm ci beneen kuréel kuréel boobu jàpp ne lii ma wax njuumte la jàpp ne lii ma wax dama leen a heurté dama heurté seeni pas mu mm-hmm. boobaa kuréel boo ci gis am na ay kilifa mm-hmm. bu boobaa man su ma bokkee ci benn kuréel gis ne keekat li mu wax dafa heurté sama kuréel mm-hmm. bu ma gaaw a génne sama réaction naa dem ci ki nga xam ne mooy sama kilifa ma waxtaan ceeg moom ndax loolu mooy njiitu Eh, maanaam mooy mooy njëriñul njiit alquran day wax ne eh, wa iza jaahum amrun min al amni aw il xawfi adaau bi walaw radduuhu ila rasuli boobu moo nekkoon yonentu sallallahu alayhi wa sallam wa ila ulil amri minhum ñu ne ñooy kilifa ya la alimahu alladina yastanbituunahu minhum maa ngi koy dénk suñu bopp di ko dénk suñuy mbokk yi nga xam ne sax bokkuñu ñoom ñoom diina diina ju ci nekk am na ay kilifa waaye it maa ngi koy dénkaat suñu bopp ci suñu biir ñu nu neen ndax kuréel kuréel yi bari na te amaguñ ba tey jii euh, benn comité de sage sage boo xam ne mooy taxawee mbir yi di régler yenn kàddu yi comme loolu amagut kenn ku nekk am na mbooloo mu bokk su ma déggee euh, wax boo xam ne wax nañ ko ci sama mbooloo bu ma fajal sama bopp bu ma tontul sama bopp naa dem ba ci sama kilifa ma ne ko ah nangam ji day ak nangam ji ak nangam ji am na te jàpp naa ne wax ju ni mel mën naa yàq bu ko defee kilifa ga nag jëfandikoo li ma waxoon léegi ne ma jaaraat ci. ma ne ko nangam ji day ak ndàngam ji am na wala wax nañ ko te jàpp naa ne mën naa jurub yàq mu ne ma ci fu amee ak ku ko amal bu nee diw sàngam moo wax wax ja mu ne wàcc nga diw sàngam mooma ci réew mi la nekk téléphone yi alhamdulilahi rabbil alamin yootul sab téléphone laajte numéro diw sàngam mooma comme yaa ko faree mag te kilifa nga boo ko woowee muy la ne ko dama laa soxla kat waxtaan woo xam ne euh, lii nu bokk ñun ñëpp la soxal bu ko sax naka fi ñëw naan wax na lii ak lële dama laa soxla ci waxtaan rek booy ñëw nag nanga nga ànd ak euh, lu mat euh, ñett ba ñeent ci mbooloo moomu nga xam ne yéen a bokk di ànd di yëngu ñu bëggoon naa yi booy ñëw nga ñëw bis sàngam ci waxtu sàngam bu ca amee jot confirmé bu kerogee buy ñëw ànd ak ñeent ca kuréelam fekk si la yow kilifa gi lu mat ñeent nga fi ba juróom ba juróom-ñaar ka indi woon wax ja nga ne ko kaay yi sëñ diw sàngam mu ñëw toog nga ne ko waxaatal la nga waxoon fi mu ne alhamdulilahi rabbil alamin réseaux sociaux yi ñu ngi fii waaye lépp loo xam ne wax nañ ko ñaare ñu ngi ko garder ci mémoire yi bu jaaree ca la mu waxoon ne ah diw mii moo wax nangam ak nangam ak nangam te mën na yàq mën na jur yàq nga ne ko fu mu ko waxee ndax mën nañoo indi wax ja firnde ji bu fekkente ne nag diw mii nag d'accord nga ne yow yaa ko wax ndax yaa ko wax mu ne waaw nga génneel ko ci la cee sa xelaat bu rafet ngeen waxtaanee ko. bu dee loo xam ne lu yàq la ñu réglé ko foofu mu jeex ñu sàkk sàkkuwante ci seen biir nag yu mel nii bañ amati yaakaar naa façon bi buñ ci doon jaar sunu diggante ñunu neen ak sunu diggante ak ñi ñu bokkalul beneen di benn diina bi nga xam ne kele itam bu yégee day dem ci kilifaam ca jàngu ba wax ko nangam ak nangam day dégg naa ñu wax ko ci suñ diina ji mu laaj ko ne ko mbaa am nga lu koy confirmer mu ne waaw am naa lu koy confirmer nga ne ko demal indil ma ko bu indee ay confirmation yu leer mu dëppoog li waa ji waxoon te xam ne lii lu mën a jur yàq la kooka kalifa la diina jooja mën naa woo kii nga xam ne ci moom la mbir mi soqee ko woo geneen kalifa ci diine lislaam wala yeneen i kalifa sax ñeent ñu bokk daje ne ah lii de am na ko defee loolu ñu man ko régler facilement sans problème duñ ko régler régler ci wàllu xaste wante duñ ko regle ci wàllu saaga wante ndax loolu yëpp mënul régler dara duñ ko régler ci benn xeetu wax boo xam ne wax bu ñaaw la ndax saa yu ma yëkkatee wax bu ñaaw rek ne dama koy régler benn problème ci benn nit ah bu dee aw saaga dey saaga naa nit ke tooñ naa baayam ndax saaga naa ko tooñ naa yaayam ndax saaga naa ko tooñ naa ñam bokkal ndey ja tooñ naa ñam bokkal baay ja tooñ naa aw askan loolu itam dafa jar di bàyyi xel ba moo tax mbir yi nanuy seet na mu gën a jekkee ñu koy regle noonu man daal jàpp naa ne canal yooyu di kilifa yi buñ ci doon jaarale mbir yi lu xew danañ ko régler te du jur benn problème yal yàlla may loolu allahuma salli wa sallim wa barik ala nabiyina ma wéy leen di abonné ci suñu chaîne bi di Fafa TV ngir ngeen mën a jot suñuy vidéo yu bees yi